sëriñ bi di wax wa fil qalbi min ridwani fii ma ukinnuhu daninan bihi inna sudura quburu loolu mooy li ko dal ci seen digg yéen lim yéene bëgg ko wax kenn doyu ko ci bu ñëpp maasoon ci di ko ko waxee rek rek moo ko mën a mottali kon dañ ko ubbi rek jotaayu rek mu néew lañ ci wax ndax day jotaayu ndam di jotaayu ndamu Sëriñ di jataay ndamul sëriñ bi di wane it li sëriñ Tuubaa waxoon ne yow ma yoon sii bi yow mi yow bi xat sama tey ju ne gàcceel na sama démb kon loolu dane fàng ba jërut woon ko amati bët na ko suñu kilifa gu baax nga Cheikh Abdoulaye na ko waxoon kon ci ndigalu sëriñ bi ñu ngi ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax ñaan gi dafa bari lu ko waral ndax taxawaayam dafa matale sëkk ni ko sëñ Yuusu waxe léegi ndax bi fi nekkee ay kilifaam jiit na sax njabootu sëriñ Tuubaa gi waaye ba mu fi nekkee kilifaam nga Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbakkeem Cheikh Mouhamadou Bachir dégg naa ci kàddoom mu wax ne dama ko wax ne ko saa soo ma séenee may ñëw rek xamal ne lem naa sama xel denc ba kër moo fi jóge mas amu bëgg mas amu bañ moo nee na ànd ak moom ba làq ngërëmam làq ngërëm kilifaam yëpp moo leen jabootu Sëriñ Tuubaa gi kenn ku ci ne ñun jamonoonteel ku ci ne séq naa ak loo xam ne loolu doy na sëkk firnde ci loo xam ne ak joxañ la joxañ ba taxawaayu tey bii wane na ne kenn ñoom seenu gis dafa neexoon lañ gisoon mooy fi mu toll tey dégg naa ci kàddoom mu wax ne am na ko ko mos a seer kàddu cant ci Cheikh Mouhamadou Bachir ba mu waxee ba jeexal sëriñ bi da ko ne rekk de waaye mu wax bu fekkee mi ngi ci yow na nga fexe ba sax bu nekkul ci yow tam na nga fexe ba mu nekk ci yow loolu nag yàlla def na ko ci moom kon day ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak ndax njabootu sëriñ Tuubaa gi doy loo woon nañ ko doy loo goo xam ne kenn xamul fu mu yem Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bañ na lu ko daa doxloo ak di ko ko yónni te booba xam ngeen ne ñi ko jiitu ci yoon yu bari na waaye mu ak dogo moo ko may Cheikh Abdoul Khadir ko ba tàyyi bu ma saan si yaar si suñ saali ci ngan yi mu daa defee moom sax bu agsee moom la njëkk laaj ngir jëli ko kon loolu seen diggam moom a tax diggam ak Serigne Saliou nag àdduna sépp xam nañ ko ndax Serigne Saliou séddoon na ko ci ci moom cër boo xam ne kenn xamul fu mu yomb ndax lu ko mas ñor wala lu ko mas a moom la ciy jiital bi mu demee ba nga xam ne dem na ba Cheikh Mouhamadou Mourtada bàyyi ko fii itam mu xamal ko ne sa jëmu jëmu ci doy kon ñoom la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ci Sëñ Mbàkke Madina rek ci jëmmam ji lañ koy xoolaat Sëñ Mbàkke Madina dafa Cheikh Abdoul Ahad dafa waxoon ne Serigne Touba de séddi. képp ku ci jub te tegu coono mu dugal ci suñ biir daanaka suñ bàkk baat bi luñ ko ëppalee waaye moom mii nag àgg na si xaal boobu tey amul dara loo xam ne eh, ñu ko daa xalaat ci doomu Serigne Touba ci positif ak yaakaar te buñ xoolee jëmm ji duñ ko gis ci moom digg mag Serigne Souhaïbou ñëpp xam nañ ko ba ñu ne ci biir daara ja daara fa ñëw xam nañ seen diggante àdduna sépp xam nañ ko soxna May. ñëpp xam nañ ne laytul xadri gi moom la defal jëwriñ ji ak mbiram yëpp kon moom mbiram di dafa yàgg te muy loo xam ne dafa dëgg ci moom yàlla binde ko ni dund lu Sëñ Tuubaa bëgg lu Sëñ Tuubaa tall lu Sëñ Tuubaa damay wax ne Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ko xam ku ne xam cër ba mu àgg xam fa mu àgg am mënuñu wax mënuñ koo xam nag waaye ku ko xam ku ne danga xam ne itteem génnut ibaadaat yi jaamu yàlla yi muy def li mu toggoo ci njàngum alxuraan ak xasida li mu toggoo ci ibaadaat yi waaye yàqalu ko ak jëflanteem diggam ak nit ñi daanaka day mel ne bis bi dara warutoon xaj ci ni mu ak bëgg sagal Sëriñ Tuubaa rek mooy tax loolu mu du ko def kon nag yàlla na ko yàlla bàyyi loolu mu yàgg te ànd ko wér doon na sëkk taxawu ñaari doomu Sëñ Tuubaa loolu moo ko njëkk am ci setu Sëñ Tuubaa kon tawfeex la ñu ko Sëñ Tuubaa defal ginnaaw bi fi njabootu jeexee ci kaw suuf Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw ku ne xam na fa mu toll ci at cër bi ko yoon wu jox cër gi ko àdduna sépp jox waaye ba nëgë ni gisaatuguñ ku mel ne moom mu jug taxaw laxasaayu boole ko juróom-ñaar fukki million ak ak lu tegal def ko addi Cheikh Mouhamadou Mbaare ngir Sëñ Tuubaa loole itam ba mu ko wax dafa dajale njabootu Sëñ Tuubaa gépp waxoon ne la ma ci gën a jund mënoon naa koo jëf te kenn du ko yëg waaye dama leen di jàngal aw yoon ñépp xam ne nii moo nii moo ware noonu la ware ñépp loolee nag dund ko moom digg mag Cheikh Sidi Moussa noonu la ànd ñoom mës amul bëgg mës amul bañ kenn mësumaa yónni ci moom ma dem xam xalaatam ba ni mu doon Sëriñ Tuubaa kon moom jataay bi tey bu fekkoon sax luy jaay la dama damaa wax ne da jënd Sëriñ Tuubaa nag lu waay am dala ko dala ko gën a baaxee la ko waaye bu doon bu doonoon lu ñuy lu ñuy jaay dama ne jënd te sëñ Abdou Lahad waxoon na ne yoon wi yii rekk fi ne liñ la dénk ak liñ la may ak liñ la jaay nee na liñ la dénk waxtu wu neexee boroom mu jëlaat ko li liñ la may mu neexee kalo ko may mu jëlaat ko li nga jënd nag kala ko jaayeen taneetulu ci taneetulu ci njëgg kon sëriñ bi lii mu am ci lislaam ji waxuma yoonu murit waaye am ko ci biir yoonu murit ndax moom day wax ne fi ma ne ci sëriñ Tuubaa ak ni muy doxee ci sëriñ Tuubaa mboolem ñi mu bokkal sëriñ Tuubaa ni ma ko yéenee sama bopp ni laa leen ko yéenee waaye suñ borom delloo na ko ko nag ndax njabootu Serigne Touba gépp maase nañ ci yéene ko jataay bi yéene ko mu yàgg lu mu fi gën a yàgg rek nañ ko ngir xam li muy jëriñ ci yoon wi ndax li ci li ci li ci gën a tuuti mooy foo gisee jëmmum rek saxee dellu ci yàlla foo gisee jëmmum saxee dem ci Touba loolu doon ko sëkkub liggéey leneen li ci des lépp mën nañ ko muñ waaye loolu li nga mooy li nga xam ne kenn mënu koo ñàkk danaa ci tànn jenn seen seere ndax njabootu Serigne Touba koo ci wétal seere sa seere sami seere ci sëriñ bi amna ci loo xam ne mënees koo yëkkati ci radio diko wax ndax loolu boko waxé sax day nuru dara waye serigne Cheikh mbakim serigne Saliou wax na ne wa yawma aslama jibril al-amin ata bi isni man huwa al kulli qaharu معلما ان اسلام الفتى عمر بصرى لاهل السماء والكل wal نعم ما nee الشيخ محمود ak Cheikh Mahmoud Moustapha te moom suñu Cheikh kon xam na ni fi mu toll mu ko yàlla bindee du wax lu mu gëmut kon loolu doon na sëkk seera te ñëwaru ko Serigne gépp gi mu ko seqal ñëpp foofu lañ maase ne ci moom kon yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ko rek mooy bisum ndam la ndax aaya bi ma tari Serigne Atou Diagne day jàmbaar lool àndoon sëriñ bi sëriñ bi xam ko si xamul dogom moo tax ma tari minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi waaye loolu itam day wane ne mburu Sëñ Tuubaa kenn ci dara lépp moo ko yorul boppam ndax ku xalaatoon ne moom mi moom moom mi des ñu aatu mën na fee jóge motul weer yii ngeen jëfaat fi jëf jigéen fi jëf te dara taxul lépp di gën a yokk lépp di gën a dox day wane ne kon jàmbaar amul fi ñëpp Sëñ Tuubaa leen dimbale sëñ bu xaar daana ko wax jàmbaar amul kun dimbale am waaye kon yéen da ngeen am dimbalu Sëñ Tuubaa sëriñ bi rek liñ leen daa seer danaa wax ne danaa wax ne képp koo xam ne mi ngi xalaat ci yéen dara daa jàpp ne Sëriñ dara jomb ko te Sëriñ dara jomb ko kon yéen wanewaat ngeen nit ndamul Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne tubaab bi da damay njëkkante ñoom koo xam ne njëkk nañ ma ci moom ñàkk naa ko bu faw waaye koo xam ne njëkk naa leen ci moom ñàkk nañ ko bu faw yéen ñii nag xam ngeen ne Serigne Touba duñ bi ñu ko yóbbu njaarim raamoo masiri ilaa jurbe la daa lasasi law aayanoo sirra maa fi sayri maa raamoo ñëpp xam nañ ni la taxoon tubaab yi indi ko fi ci seeni natt mooy jàppoon ne fii ak njaarim toll ci ay taax bu ñu ko fa indee ña Serigne Touba xasoon defar kenn moo tuddee na soppi waaye ñii judduwaat ginnaaw bi ñëpp cinéma yi ak marché yi ak mbooloo mi daal leen fab bi yéen ñii nag yenn weddil Serigne Touba tuumam wana ngeen ne Serigne Touba lepp lu mu bëgg def ci nit ci dara ta dox digge digge ak loolu da ngeen layal ngeen Serigne Touba wana ngeen ndamul Serigne Touba kon nak na ngeen sante yalla bu baax ta xamne ni ngeen di doxee itam Serigne Touba leen ko digaloon Serigne Youssou nag yow da nga am tawfiq ndax tawfiq di moy dayri bi da doxone ñeen ñenn it ànd ci seen bir di tànn njiit baax ci ci atu mu def ci jéggu reere rëy ci taxawaay bu ma sëkk boo xam ne dund naa ko mu xam ko yow nag da nga am tawfeex ndax yow suñ bee la tàmmal boppam te ba mu lay tàmmal boppam itam diisoo ci laaju laaju ji waxtaanu ci daanaka pare yëkkati boppam kàddu wax ne fu ma gisee aato sama xel dem ci yuusu fu ma gisee yuutu sama sama xel dem ci aato kon sëñ bi xamoon na dayra bi dara luy soppi ko mu ci loolu nag ne wane nga ko tey jii ndax bi ngeen mujjee siyaare ñaar téeméeri million amoon tey siyaare bii ngeen koy def bi nga koy wax Serigne Moussa. di ko ca laaj loo sëñ bi ndigal boo li des ci koor gi moo fukki fan jóom sëriñ bi tànn la bis diggante moo fukki fan ak juróom ngeen dajale ci ñetti téeméer mi ñooy tegal li mu jeesul te xam ngeen jeesul li muy tegtale ci mbirum Sëriñ Tuubaa kon yéen am ngeen tawfeex ba noppi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nag moo leen taxawaloon tegoon leen ci yoon waxoon leen ne leen fu Sëriñ Tuubaa xëy na ngeen fa gonte fu mu gonte na ngeen fa xëy loolu nag wàccu leen ko waxoon waxoon na leen ne leen itam yéen a ngi jëm ci dëkk boo xam ne yéen a ko dëgg ma sax dara mun leen te fa àgg te bu ngeen fa àggee képp ku ngeen ko àndul daan leen ci ñe loolu yàlla defal na ko tey ndax na ne ñi ëpp ci nit ñi gindi seen ba ca waxoon waxoon na leen ne leen lépp lu ngeen dajeet ci seen biir te kenn raxu leen na ngeen xam ne wax yu bu jógee Sëñ Tuubaa la loolu doon na sëg kon nag sant leen yàlla bu baax. te xam ne Sëñ Tuubaa liggéeyal ko képp ku mu defal tawféex ba nga dëddu àdduna bàyyi lépp di ko liggéeyal na nga xam ne am nga defarug àdduna ak alaaxira ndax moo ñaanoon suñ borom ne ko wax di xawaay jëli si na daamu fii xidmati wahab lahum maaraamu ma nettali si rek lu gàtt ndax dafa nekk ca njaareem ca ca ca gànnaar ca déwén sële sëñ bi ñibbisi nee nañ ma woon fere yépp ñu daje. mu war ko fere yëpp ñu daje mu wax suñu alliou seen ak alliou wool ma fere yi ñu war ñëpp ñu daje sëriñ bi ne ne alliou limal ma ci yéen yi am Sénégal loolu suñu changement bi moo ko daan nettali euh, suñu alliou seen di lim gum jëm rek sëriñ bi ne ko du googa ba jeexal mu ne ko xam ngeen lu mu ci jubloo mooy damaa bëgg ngeen xam ne lépp moo xam ne digg naa leen ko fii tey ni ngeen di gisee lii ma leen di bëgg dig ni ngeen ko gisee daane suñ borom xamal na ma ne balaa na si déwén danañu fekkee Sénégal ci ci yéen li ma ci jublu nag mooy bëgg ngeen xam ne lépp lu may dig ci àdduna ba walla gi deen ko gis fii ma leen ko waxee nag ba kenn ngeen ba keroog ngeen fi jógee kenn du faatu ci kàttanu yàlla fekk am na ci menn magum taalibe mu doon xaaru ñëpp jàpp ne day faatu waaye dafa wéraat ba sëriñ bi ñu bisu eh, Sénégal ci yéen Jolof mu door a faatu kon loolu mooy mbiru Sëñ lii ngeen fi indi muy addiyee nag rëy na lool waaye sintuwaa Tuubaa dara rëy ci ndax nekk na ca gànnaar am kenn ci bokki taalibe yi ci ci kilifa yu mag yi wax ne dafa bëgg dajale addiye dafa bëgg dajale Sëñ Tuubaa addiye ju ko kenn mësa yox daal di mbay mbay mu yaatu dajale ay taalibeem dajale lam amoon lépp jaay ko mu nekk juróom-ñetti junni mu ànd ak mbooloom ñoo fekk sëriñ bi ci ci ci ci gànnaar bi mu agsee nuyoo sëriñ bi laa ko doon see tànk mu ne ko dama laa siyaare si woon bëggoon laa jox addiya addiya ji nag mu ngi toll ci juróom-ñetti junni sëriñ bi ne can waxu ko dara dugg ci biir na sóotu mu ginnaat daal ne ana ana ndaw yi mooy sëñ Ndumbe fekk sëñ Ndumbe yónnee na fa ndaw ba ndaw la agsee sëñ bi ne ko àndal doon say tànk mu ne ko suñ Maodo Ahmadu Ndumbe moo ko lu mu di yónni mu ne ko ko lu mu sol mu ko xawma ko ka indi woon loola sëñ Tuubaa ne ko àndal ak ci biir kees yi ñenn wàññi ko ba xam ñaata la bañ demee wàññi ko mu ñaata ko kon sëñ tontu na kon nañ xam ne sëñ Tuubaa ko waaye di defal rek ne moo la ko defal lañ ko mën a fayee ndax am na koo xam ne gàmm dafa jot sëñ Tuubaa wax ne kooko wax ne. damaa bëgg a teral gani gani Sëñ Tuubaa delloo ko fu njukkal ca njaarim rey ay nag yu baree bari ak i xar ak la man lépp séddale penc ma ba mu fees lépp mu jëf ko ay ñam ba gàmm gi jeexee mu ñëw ci sëriñ bi leeroo ko li mu jëf sëñ na ne ko ana loo ci jubloon mu ne ko xanaa del delloo la njukkal sëñ bi ko mënu leen ko kon yàq nga si jëf ndax la la nga man ba tax nga def ko maa tax nga man ko kon kon kon lay cant gi mooy ngeen yëg ne maa leen ko defal kon nag foofu lañuy jeexale di ñaan sëñ bi yàgg fi lool te ànd ak te sëñ Tuubaa tàbbal ñu ci lam boo xoo ne add xaltu nafsi wa jamii ahli fi jey bi afdali wara bi fadli wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh